génn xeetu garaaw goo xam ne maanaam jéggi na dayo njiitu réew mi di président Macky Sall situation bu doy waar bi nga xam ne moo am ci wàllum ndox xëy na di ko wax waa réew mi quotidien ba pare di alerter nee na ñi nga xam ne ñoo mun ta jot jamono ji cim ndox ci askan wi bëri nañu lool te ndox nag nekk na loo xam ne maanaam lu mun ta ñàkk la ci doomu aadama wax na ci insécurité bi nga xam ne am na ci wàllum ndox mi maanaam ndox moo xam ne seelul te loolee mën naa andil askan wi ay gàllankoore ci lu jëm ci seen wàllu wérgu yaram ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi lu toll si ñaari téeméeri millions yi heure yoo xam ne danañu ko wër ndox ngir na nag mën koo jëfandikoo waaye France daal li xëddee na njiitu réew mi di président Macky Sall nee na mille catastrophe yi nga xam ne moo am ci àdduna bi quatre-vingt-dix pour cent yëpp laale na ak ndox ba moom journal bi di ñu xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di Macky Sall li bëgg mooy nag ñi nga xam ne ñooy waa G20 ubbi bunt yi Union africaine mën a intégré ca biir kaay gi de la Soleil moom njiitu réew mi di président Macky Sall joxe na ay proposition ngir nag giraawaali gi nga xam ne moom la àdduna bi nekkee ci jëm ci wàllum gàllankoori ndox maanaam ñu mën a am solution yéen kaay gi nee na Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru moom tim def na li nga xam ne mooy ab fura moom moom Barthélémy Dias na ndox dañ doon wax ne source de vie waaye nag jamono ji mën na ñoo wax ne source de problème la ndax nag giraawal yi nga xam ne am na ci lu jëm ci wàllum ndox jéggi na dayoo doomu Sampol Dias bi démb wut na ay expert ngir nag ñu daal koy waxtaana la ana nan la ñuy def ba ñëpp mën a am accès à l'eau waaye nag jafe-jafe yi nga xam ne ñenn ñi amee a daal di baal réew yi nga xam ne maanaam ñoo pauvre seen i bor yéen i kaay gi de l'info bàyyi mbir moomee xëy duñu xibaar naan ñu Ahmed Aidara maire bu ville bu Guédiawaye tey jii ci talaata ji dana def déclaration patrimoine maanaam wax moomeelam fan la toll yéen i kaay gi di Vox Populi ñu koy fekk fa Thierno Bokk moom nag woon na opposition bi ñëpp ngir nag ñu joxante loxo ngir nag mën a xeex li nga xam ne mooy parrainage bi moom Thierno Bokkum àndul benn yoon ci nga nekk député nekk maire wax na ci lu jëm ci wàllum borom ñaari tur nee na nag loolee ab référendum lañ ci war a amala yéen i kaay gi de L'As tribunal bu Ndakaaru dina àtte Cheikh Dieng ak Abdoulaye Timbo maire bu ville bu Pikine ndax nag ñi nga xam ne ñooy waa la Sénégal ñoom dañoo jàpp ne élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ñoom ñoo gagné ville bu Pikine loolee moo tax nag tey jii cour d'appel bu Ndakaaru dana sëyee yàbbi yéen a kaay gi de Libération xëy diñu xibaar naan ñu Sonatel agence bi nekk ci boulevard de la République sàcc nañ fa lu toll ci neuf cent quatre-vingt-dix na am ne teg nañu leen loxo ak ñoo xam ne njort nañ na seeni complice lañ yéen biir réew mi ko di cee xëy xibaar naan ñu ni ki démb moo xam ne mbir mu doy waar la dafa am benn jigéen boo xam ne moom ak rakam bu jigéen dañoo demoon marché HLM sàcc fa lu toll ci 30 mètres gës nara teg nañu leen loxo tëj nañ leen lu toll ci ñetti weeri kaso yéene kaay gi de Les Échos ak Bës bi ak L'Observateur ak réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu Ndeye Khady Ndiaye borom salon bii nga xamante ni fa lañ tuumalee Ousmane Sonko tey jii moom ak borom këram danañu ko dégloo yéene kaay gi de La Tribune nee na premier épisode bi ci mbiri Ousmane Sonko aji sare tey jii lay ubbee yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy nag wax ci ab ressortissant nigérian maanaam koo xam ne doomu réew nigéria la bu nekk fii ci sénégal di jaay fëgg jaay moom démb àtt nañ ko ci tribunalum Dakar waa moom lan la defa li ñu koy tuumaal moo yegg ci benn xale bu jigéen boo xam ne fukki at ak juróom ñaar la am nee nañu nag lu toll si ñetti semaine ñetti ay bés yoo xam ne moom doomu réew mi nigéria bii moo sëgg si xale bu jigéen bi maanaam di ko def lu dara jërul ni ki démb la ñu ko doon àtte ca tribunalum Dakar yéen a kaay na moom doomu réewum nigéria bi nee na fa nga xam ne fa lay jaayee Guy Ndiaye ca Parcelles Assainies unité 17 fale ko xale jigéen bi fekk nettali ko jafe-jafe yi nga xam ne moom lay dund wax na yaayam nag daf koy fitna la noone nag nee na si la ko xale jigéen bi nag toppee ba bi ñu demee nag bàyyi cinq heures du matin moom doomu réew Nigéria bi nee na jigéen bi dafa ñëw nag bëgg a ànd ak moom bëgg a sëy ak moom moom mu lànk ba mu yàgg nag mu daal nangu boobu nag saytaan dugg ko journal a da tribunal ba ndax nee na def na erreur yéen a kaay gii de Les Échos nee na tamit ca diwaanu Pikine Technopole foofee tamit dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne ab élève la moom dafa demoon ci benn sëriñ ngir nag sëriñ bi ñaanal ko sëriñ bi jox ko loo xam ne daal du ànd si la ko daal di dem porte ci plainte yéen a kaay gii de wax ci éliminatoire mondial Sénégal Égypte ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la niki démb sunu bu njëkk fi nga xam a